da nga wax ne ñaari potentiel candidat ñoo génn ci li nga xamante ne mooy mooy les candidats à la candidature yaa ngi cité léegi ki nga xamante moo di Boun Abdallah Dionne ak euh, Amadou Ba da nga génne woon d'ores et ki nga xamante mooy ADD. oui. pourquoi. non xam nga nag euh, bu ñuy waxante dëgg rek bu ñuy ut un candidat pour mu représenter un groupe à une élection présidentielle homme d'état doyul ADD homme d'état la loolu kenn werante wu ko. qu'est-ce qui lui manque il n'est pas un homme politique comment ça non c'est-à-dire que euh, Abdoulaye Daouda Diallo boo koy xool à la il est il est agoraphobe dañ waxante dëgg nekkul nitu mbooloo nit ku tëju la daw Daouda Diallo doo dem quelque part bañ ne la fii lay fréquenter mu ngi ca groupe bële mu nga mu nga stade mu nga làmb ja mu nga fii mu ngi fii son travail son domicile en dehors de sa localité politique. et pourtant mu gagné demul fenn mu gagné dëkk déggoo li ma la ma ne en dehors de sa localité localité politique. demul fenn. jéemu la dem fenn